suñu deuxième numéro suñu momel si sokon tv ñuy tan nak ñi nga xamné ay doomu sénégalais lañ nek fi ci mim réew taxawal seen entreprise ak seen société ngir ñëpp mën ko xam ëllëg xalé yi bañ koy yaq ndax nak ay doomu réew mi lañu té nak buñ ko amutoon dañ koy jéggani dong entreprise bi ñuy wowe EDK kiko mom nek ab doomu sénégalais homme d'affaires bi ñuy wowe dembaka waxtu wi may wax ak yeen ñu ngi liggéey liggéey bu am solo si sénégal si walu carburant waye si marché bi aussi ñi utiliser ay produits yo xamné

wàllu supermarché yi ay pompis bëri na lool kon nag lii suñu moomeel la ñu bañ koy foye di koy yàq chronique seen moomeel Makayre Ndiaye di koy def ci Sokone TV yow mi yore entreprise wala société bu ta doon mun nga jokkoo ak ñun 77 508 62 65 ñu ngi leen jox dig daje suñu troisième chronique suñu moomeel